waaw ngeen toog di xaar résultat yi fii ci siège u Cheikh Tidiane Ba lan moo tukkeegum ci résultat waaw en tout cas ñun ñu ngi toog di xaar liñ jot a am par information si bureau yi jot génn ñun suñu suñu leader moo nekk si kanam daal pour l'instant waaw ñu nag ñoo ngi toog di xaar kon yi des na mais ñoo ngi xaar waaw mais aussi euh, lu xew Dakar aussi gis nañ ko ville de Dakar Barthélémy Diaz moo dominé ci tendance yi yéen aussi loo leen jàngatee waaw loolu waaw waaw waaw mais dañuy dañuy dañuy taxaw taxaw xaar rek parce que résultat yi jeexagul ah xamaguñu fan la affaire yi mujjee lu si am rek ñu xam ne noonu la loolu noonu demee waaw. bu tendance yi confirmé woo bu mag lay waaw pour pour APR waaw mais nag yooyu yëpp loolu loolu ci liggéey la papri aussi sénégalais la comme tous les sénégalais taxul du ay du suñuy noonu dañu dañu bokkul conviction loolu la kese mais ku gañ rek ñu xam ne loolu la yàlla dogal. voilà loolu la quoi waa mais aussi euh, bu tendance bi confirmé woo comme toujours peut-être militant APR nga. ci biir APR il faut am ay sanctions aussi parce que Diouf Sarr bu doy nii Diouf Sarr bu perte Dakar yenn lieutenant yi perte seen localité aussi remaniement bu ñu jëm dina bëri ay bouleversement. waaw waaw loolu moom si loxo président la nekk loolu moom si loxo président la nekk yi ngay wax ni loolu man sama euh, niveau yeggul foofu mais loolu dañ koy bàyyi président. ak ak nitam moom xam na ni muy ni muy liggéeyal xam na seen capacité ak seen xarañ te aussi dooloo na leen daal. ndax kii la àndal barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ba la àndal léegi Bamba Fall gars yi ñoo ñoo def man la man la maa la man buuju maa la xool si mbali laa jëm. loolu gaañu naa sonn naa barke Alxuraan Karim xool xool na ma gaañu xool na ma dégg xoolal di li yoon la ah man de xoolal ku gaña baax na ku gaña baax na mais dëkk bi ñoo ko moom ñu ne Sénégal man Sénégal laa du ma étranger ku gaña baax na. mais xam nga soo ànd ak ñi ànd kee mooy loolu man de boobu man de nag moo tax xam nga gars yi profité ma xool gaañ ne ma damaa rëcc sax. bi yow loo leen def ba ñu def lu. def ma leen dara kii laay wote wote la ma kee loolu rek wote na barke alxuraan karim billaahi wallaahi taala léegi woote moo si ñoom kii laa àndal léegi indi ma problème. waaw fan lañ la ko defee. fële euh, Malick si maa dem naa pour quatrième dama dem pour rëbës ma dem pour quatrième ñu ne naa dem naa dem rëbës ñu ne ma dem quatrième quatrième laa jógee c'est le possible def na lépp am naa marché am naa lépp mais lii du yoon élection la rek ku gagné baax na ku gagné lu baax na yàlla moo ñuy may rek wala am noonu amul ku gagné yaa xam te yàlla tax man buuju mala si mbali bi laa nekk xool nu ma sonnee xool oh, gaañ ma gaañu naa de me damay nelaw yi dama dem wuti mbaxalu Saalum dem tëdd nelaw te waaw mbaxalu non hôpital hôpital nag bàyyi naa xamu mango man buju man la hôpital dañuy ah xamu mango waaw dëgg na sama côté barke alxuraan karim waaw Pape Daouda Sow laa tudd njaaram laa dëkk Jurbel Jurbel laa dëkk njaaram Pape Daouda Sow jàppale Cheikh na yaakaar nga kan ku am ndam baax na wote naa ku ma woteel xam naa ko mais xamuy dañ ma ma mere mais njaaram laa dëkk Pape Daouda Sow laa Bamba ak kan Cheikh Ba ku gañe baax na mais concurrence moo moo moo waaw di ñaanal nag man sama maire mi Bamba Fall maire Médina dafa ñaanal ndam lu sedd guy si barke Serigne Saliou. mais moom fu mu toll dara génn. waaw Bamba Fall non pour le moment gars yi ñu ngi wax rek dara génnagul mais man dama koy damay ñaanal Bamba Fall man mu gañe man. waaw mais dara rek yàlla baax na man Bamba Fall dama koy ñaanal yàlla mu gañe parce que le dafa war a dafa nekk ci liggéey nañ ko bàyyi mu continue parce que mu ngi liggéey nañ ko bàyyi mu yeggale liggéeyam man loolu laay ñaan quoi Bamba Fall na gagné Barthélemy gagné man loolu laay ñaan ñun dañu sonn grand dañu sonn fii y rien amul dara dara doxul dañu sonn se gouvernement bi dañu gëstuwul kenn seen bopp lañ fi nekkal on se dise la vérité képp ku votel Macky képp ku votel waa APR a ah dama jàpp ne yow doo vrai citoyen c'est am na yoo xam ne ñu ngi ko fi bëgg a teg gars yi bëgg ci ànd ñun du ñu ànd ci lool fii réewu julit la ay nit ñu baax a fi tëdd nañ jël lépp rek teg ko si xel mu sell mais na lépp rafet rek sa ndam li génnul Sénégal mais nag di woote surtout no à la violence man surtout si loolu laay sensibiliser gars yi non ah mais garawul mais Médina ñun ñëpp xamante ñun ñëpp fa lañ juddoo fa lañ yoroo mais bu ñu nangu politiciens yi di ñu féewalee nag xaalis jaru ko xaalis day jeex. c'est gars yi dañ ñëw indi seen xaalis teg ko nañ dem liggéey ji loolu mooy wax ji mais buñ nangu kenn di ñu féewale ñun ñëpp ay booy Médina lañ fa lañ juddoo fa la ñu yeroo mais politiciens nañ bàyyi di féewale booyee di leen jox ay armes ñiy xeex seen biir di reyante jaru ko naka lan affaire de xaalis Bamba faa laay ñaanal man man man ñëpp ma xam je suis de la Médina man man maay wax man man boo boomaan Bamba faa laay ñaanal mu gagné ak Barthélemy barki Serigne Bamba ak Pape Diouf tamit yàlla na gagné surtout waaw Pape tamit yàlla na gañe yeewi askan bi yëpp yàlla nañu gagné ñun dañu sonn si nguur bi jaajëf champion merci beaucoup